ñu jàll ci beneen point bu am solo bu ñu waxtaanee tey jii parce que l'idée euh, ñu ngi koy euh, wax de plus en plus ah xëy na bi ci mujj mi ngi jógee ci président PCS Jëngu Tabax muy Boubacar Camara jàpp ne xëy na dañoo war a reporter les l'élection présidentielle de 2024 dugg na teew ñu na talent son représentant yi de là avec nous on va lui poser la question pour xam loole fan ngeen ko teg. damay kontaan ci ci ci laaj yooyu di di wax nag ak sénégalais yi parce que man sama wax. ci mhm. sénégalais yi la jëm. Euh, Boubacar est un homme d'état hors nag ndax bu ma la waxee jaaruwaayu jëmm jooju dafa yelloon ñu doon wër ci Sénégal ba gis ku ne mel ñu seeti ko. en tout fonk xam-xam la. mooy li nga xamante ni sénégalais boo dajel mu ne la kooku ku bari xam-xam la Boubacar est hors hiérarchie parce que IGE ñi fay nekk or hors hiérarchie ñooñu bokkuñ ci classification ci ci ci ci ci ci ci euh, fonction publique du Sénégal yow mag mu toll noonu jëriñ réewam pendant plus de quarante quatre ans Boubacar soldat la tàmbale au bas de l'échelle mhm. au bas de l'échelle ouais. armée qui est militaire kan moo gën a bëgg sa réew militaire Boubacar yemul foofu mu ne lii doyul mu dem di se battre ba nekk un marin mhm. on a sept cent cinquante kilomètres de côte muy risque viom am tout le temps pour ñun ñi dekk ci réew mi ñu am jàmm Mamadou. Mhm. Boubacar yemul foofu mu dem à la douane préposé douane la tàmbale mooy douanier yi ngay daje ñuy taxaw ci tali bi di jël oto yi di jàpp di xool oto yi di contrôler. Mhm. qu'est-ce plus noble encore qu'un douanier. foofu la commencé dem ba nekk DG douane. kooku moo topp di yéeg di yéeg ba ilif douane Boubacar bi muy ilif douane c'était pas évident. Mhm. parce que ay mag ñu baree nga fa woon ëpp ko garaat. gën ko mag mais dañoo xool Ablaye Wade dafa ñëw li mu bëgg lépp waa joojoo ko xam moo ko ko mën mooy ko ci tontu mu ne kii il est censé être le deuxième. loolu yëpp baax na mais ça ne répond pas à ma question. waaw non non c'est-à-dire que euh, Sénégal dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy suul ndaanaan. Boubacar dañ ko war a wone nit ñi xam kii kan la parce que à chaque fois qu'est-ce qu'on te dit kooku kenn xamu ko. il est temps nag que ñu xam kan mooy Boubacar. mais instant bi nii ni ko nar a xamee aussi est-ce que méthode bu baax bi la. déedéet du du loolu Boubacar nekkul ci ay buzz un nom d'État responsable boo xamante ni Macky Sall cuune yii mu àndal depuis toujours a voulu travailler avec Boubacar wax na ko ci biir wax ko ci biti. Mhm. il a refusé ànd ak kooka kooka bu taxawee. en homme lucide et responsable taxaw ak waa Sénégal yëpp gis situation politique bi nga xamante ne réew mi fa la toll xool jafe-jafe yi xool instabilité politique bi am ci réew mi xoolal dara doxul kilo keccax mille cinq 1500 lay jar <laughs> ah ñeenti jën juróom-benn jën mille francs lay jar nit ñaa ngi mer suba ak ngoon guddeeg bëccëg le principal opposant bi nga xamante ni gone yi moom lañ app yaakaar nga jël ko tëj ko ci kaso gi c'est-à-dire ñëpp mer. est-ce que ci condition yooyu buñ ci demee élection est-ce que ñu ngi xool est-ce que pëccëxoo bi nga xamante ni dina ko jur te est-ce que les attentes encore pour un homme averti un homme d'État boo xamante ni wax dëgg vision bu leer la am ci Sénégal le Sénégal est plus important que la personne de Boubacar. mais vous faites quoi du respect du calendrier électoral. non gis nga présidentiel euh, li ñu koy toxal bariwula ah. non non Mamadou. situation bi ñu am deux mille vingt deux mille vingt quatre deux mille vingt trois bii ñu nekk. masul am ci senegal cest à réew moo xamante ni tey kenn xamul fan la réew mi jëm léegi. mais réew mi mi ngi dox ah. non Mamadou est-ce que tu réew mi ngi dox. réew mi ngi dox. tu es sérieux que réew mi ngi dox tranquillement di nga ñibbi waat après non non loolu du dox. xam nga lan mooy lan mooy lan mooy problème mu catu gaay yi. Mhm. fu mu ne nii bu ñuy natt senegal Niger lañu lay wax ma ngay tàkk. waaw loolu moom du exemple bu baax. cest à dañu dañu dañu gàtt gis-gis te dañu bon sax nag en réalité yow doo ne ma ngay avancé. doo ne France ma ngay dox déedéet yow ñi ñi ñi. ñi nga tane ngay wax ñi nga tane ngay nga teg bët. amuñ ambition Boubacar qu'est-ce qu'il dit mais xoolal le problème bi am tey ci jàng xale yi école ubbi na. mais il est sûr à tout le monde que ni fii ba deux mille vingt quatre instabilité mooy daa am dans. dans dans dans les déficit d'enseignants waaw maa koy wax sànq. mais non dem géej gi ñetti étudiants bokk nañ ci. ne nii Mamadou. Mhm. li tax gars yi bëgguñu étudiants yi jàng sax xam nga lan la mais pour xamal la ni seen intérêt bopp leen ñor pour quoi que ils se disent que ni étudiants yi boo leen dugalee université ils vont créer le bordel dans ce pays mais étudiants yi faruñoo kenn. ku seen jàmm nekk am yërmande ci ñoom lañ faral Boubacar a analysé cette situation sociale cette tension là un homme en visionnaire nag qu'est-ce qu'il nañu def est-ce que que c'est une c'est une question qu'il a dit waaw adressé à tout le monde waaw un report non les gens se trompent à ça buñ foogee ni loolu mu wax Macky Sall lay la ci lañ ciy neexalee. parce que nekk euh, ci origine dissolution coalition jot na parce que Macky ko kenn ku dul Ousmane Sonko donc tey jii boo xam ne mel nii mu bëgg foofu tontu naa ci ci benn ci benn benn média fan yàgg gis nga Mamadou foog ñu xàmmee senegal ñiy politique ñan la am ñoo xam politique seen métier la. ci la ñuy xëy suba ak ngoon guddi ak bëccëg Boubacar mënta servir pendant plus de quarante quatre ans ce pays là le président de la République du Sénégal en tant que citoyen et patriote woolu ko ngir waxtaanee moom réew mi mu ne ko du dem et que bu fekkoon ni Boubacar demul li muy wax duma ko gëm man parce que nit ku bëgg réewam jafeñ jafe ñu réewam tax qui a motivé son engagement mais yemul foofu ma wudu Boubacar dem na seeti Macky Sall. Mhm. kam àndaloon c'était Ousmane Sonko le principal leader bi nga xamante ni ñoom lañ nekkaloon ci ci biir jot na mais ba muy dem par loyauté va demander à Ousmane Sonko Ousmane Sonko devant un public nu dit que ni Boubacar dafa neex a àndal ndax du la wor du la sànni xeer te du def dara sa ginnaaw amul benn acte diir gi ma nekk ak moom mu koy def te waxuma Ousmane Sonko. maa ngi ci lii maa ngi def li maa ngi def li bu demee ci loolu dikk dina ñëwaat rendre ma compte mais qui li plus fidèle bu Boubacar.